sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey maa ngi jégalu bu baax di Mbàkke asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi leen di nuyu yéen bokki taalibe yëpp te leen sant bu baax a baax te di ko seedeel sëñ bi ndax sëñ bi wax yow seede seede rek nga murid yëpp sëñ Tuubaa lañ ca yow li la sëñ Tuubaa boolee ci boppam mooy nga nuy seede ñun murid yi kon nag alhamdulilahi rabbil alamin sant nañ bu baax a baax eh, mënumaa wax ci yow nag ndax ku ne xam na sama diggante yow mun li li ma mën a wax ci yow daal mooy ni fa la sëñ bi teg rek lañ la teg te mooy nga nekk suñ kilifa di sunub sëriñ di dalal suñ xel ci lépp fépp fuñ mas a nekk yi tamit fu mu mën a doon lu sori lu mu ruqe lu guddi lu mu naaj fekk nga nu fa luñ mas a nekk itam ànd nga ci ñun ci loolu lépp itam du dara lu du sëñ Tuubaa kon nag dañ lay ñaanal yow it eh, li la sëñ tubaa tànne bu boole la ci boppam yàlla bu la ci kenn man ci barkeb su waajuru tedd wa te di sàkkul ci mbooloo mi rek kese nga ñaanal ñëpp ñaan goo xam ne du jëm ëllëg tey lay tey lay doon ca mooy faj ak aajo ci soxla yi ak ite yi ak saafaraas jàngoro yi na ko na ñu ko ñaanal ñu ñëpp fasal na ko bu loolu jàllee itam nga ñaanal ñu doon dëgg-dëgg taalibe sëñ Tuubaa yoo xam ni sëñ Tuubaa dañuy téyel boppam ba duñ ko rëcc moom mi mën a téye nañu téye boppam bu ba duñ ko rëcc loolu rek laa lay ñaan nga ñaanal na ku ñaan gi nag bu mu jëm ëllëg tàmbal tey rek tey na aajo yi faju waaw jërëjëf Mbacke waaw jërëjëf fa la ñaan gi waaw comme noonu suñu laat waxee rek kon nay tey rek waaye eh, di sant sëñ Tuubaa bu wér a di sant sëñ tubaab bu wér di sant sëñ Tuubaa bu wér am na loo xam ne kenn du ko làmbut daj ko daj waaye des ko yëg nag ñun yëg nañ li ngeen àndeek noon yéen itam da ngeen di fexe ba li ngeen àndeek noonu ngeen xam ko di ko yëg rek du lenn lu dul sëriñ bi nit ki mënut a joxe boppam lu am joxe lu mu jur joxe ba pare te du kam koy jox du ko teg fenn mënta tane ñun bu ngeen meloon nii da ngeen nuy sonal rek waaye il faut nu ànd ak di këñ leen këñ leen sànni duñ leen wàcc duñ leen maye ànd ak yéen rek li fi ne nag kenn du ko maye moom des koy jaay te niñ koy jëndee mooy ci jub rek te noonu boo gisee may ñëw daaw ñëwuma damaa yewal Cheikh Mouhamadul Fadal mooy kilifam yàlla dogal moom bu ma ko manee danaa fi ñëw ndax jigéen jigéediwu ko bi ma dikkee fekk ko nii jàng damaa ne woon buñ ko dagg ndax nun moom noo ko war a def ngeen koy déglu nun ñii sëñ bi boole ñu ci boppam ñoo war a toog di ko wax ngeen koy déglu waaye bu ngeen ko nee defal nag yéen da ngeen a doon ñaari da doon ñaari saan woo xam ne day rey ñaari ñaari picc kon nun liñ leen war a sagale mooy ngeen xam ne yëg nañ ko moom foofu rek lañ mën a yem nag li ci des nag moom moo ko moom te doywu ko dara te yàlla bi mu ñu sàkkee ba noppi def nu nit yëmu ci ak ñun sëñ fa looy wax daal ne daal ci teg nag ñu def ñu ay jullit muy ñaari bénéfice nee na ci yëmu ci ak nag mu dema dem ba yàgg nag mu indi kii kii ko ko xam kenn xamu ko de moom waaye dafa tànn ci tànn kookee rek def na ay murit kon nang fexe ba bu bu bu yeneen ci dara rek te loolu rek mooy fulla sëñ bi moom moo nu tànn bi mu nu tànnee ba noppi rek nañ fexe ba xam ki nu àndal ko mu doon rek nañuy toppatoo waa yi te di leen dimbale ci lu ñu man ndax da koy santaane la cay dolli ko mooy ñu dimbali suñu bopp ci xam ne ku nu gis xeemem sëñ Tuubaa ci noonu te lii wane na ko kon nag yàlla na nu yàlla taxawu euh, Abdoulaye nag man sama xarit dañoo bokk bàyyi maam Maharam moo am fukki doom ak ñaar ku ñuy wax maam Balla mooy caatam mam Balla moom ak moom ñoo ko bokk. moom meñ moom meñu sëñ Tuubaa mel ni ñëpp rek mm. mel ñu bàyyi moom mi kon maam Balla moomee nag ñoo ko bokk kon mel na maam moomee ñoo ko bokk li fi ne kenn mooywu ko moom lu ngeen def ci moom mel na ni ci ñëpp ngeen ko def jotaay bi nag jotaay bu mag ñëpp la jotaay bu sëñ Muntaxa la jotaay yóbbu am Amdi Fall mu toogal Cheikh Ibra jotaay yóbbu sëñ ma Bas Anta Ñang ma toogal ma Cerno ak fu sëñ Tuubaa def dara mm. rawatina moom mii nag ma dëkk jaaxal moom fu ne dinaa ko fa fekk nit ku baax la as la ab jullit la ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la kenn du ko gis te doo xemem sëñ Tuubaa ci moom loolee nag la ko waral mooy gone la waaye teewut am na jikko ju baax man fu ma jëm damay ànd ak moom la ko waral nag mooy maa ko bëggal sama bopp yàlla dogal loolu waaw ginnaaw yàllaa ko dogal nag moo tax foofu ne dinaa ko fa fekk jot kenn amu ko ni ngeen kenn waaye nii ngeen bàyyee seen jot yëpp di teewal fii nun bu amee ngor rek war nañoo mën a bàyyi seen jot dikk ci yéen bu ngeen ma gisee bu ngeen ma gisul man maa leen maa neex ngeen ma <laughs> neex ngeen ma kon nag li moom moom kenn xamul di sant góor ñi nag di sant jigéen ñi jigéen ñi tam nag bu ñuy seeni seeni soxna ak seeni yëpp dangeen leen ciy boole ñuy ñuy toiletu di ñëw di bokk ndax ginnaaw lu lu sañ sant góor sant na ko jigéen na ngeen di fexe ba boole ci seen waa kër yi ñooy njëkk nag bu ñu njëkkoon ñeneen dana mën a dikkat ab daayira day day day day jigéen ñi dañ ci am solo ndax liñ mën a joxe góor ñi mënuñu ko joxe loolu daa mel ne loolu daa xew ci kon na ngeen di fexe ba boole ci seen i njaboot boole ci seen i soxna ñuy dikk di teew di teg ab daayira nag li ko yor mooy du affaire bàttin du yëpp di ñëw ci daayira teg rek lu ngeen bëgg def def ko wa rahmatullah sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene